jërë ngeen jëf mbokki internet te suñu actu tv ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay ñu àddu ci xibaar jëm nag ci réunion bi nga xamante ni ministre de l' intérieur euh, di Jean Baptiste Tine daal di woon na ko woote ni kii tey jii leen euh, doon si dalal parti politique yi nga xamante ni ñoo war a dem ci élection législative ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum novembre 2024 bi lee lañ koy amal ci teewaayu atel alliance pour la transparence des élections ci boobu les réunion nag ñu daal di fay nemmeeku ak coupe malentendu bi ba tax nag ñi nga xamante ni ñooy waa ATEL ñoom nag dañoo gedd boobule salle réunion ci njiitalu seen porte parole bu ATEL di Oumar Sarr moom nag mu daal di xam leen rek dañoo daal di jël ay décret sans rek ñu daal di leen consulter ngir ñu daal di organiser yu les ba tax nag ñoo ñekkoon ñu daal di gedd ñu génn boobule salle tax nag moomee di ministre de l'intérieur di Jean Baptiste Tine daal di yëkkati ay kaddu mu xam ni rek ñoo mu mel législative ba tax nag mu ngay xamle ni boobule boycott bi nga xamante ni dañ nañ koy def loole nag nekkul ab décision boo xamante ni rek dañ nay baax ci position politique ba tax nag moom mee di Jean Baptiste Tine mu ngay invité waa ATEL ngir nag ñu daal di rejoindre boobule processus électoral ngir nag daal di trouver ay solution leneen li jëm ci mbirum xibaar bokk na ci nag kaddu yi nga xamante ni kile di Pape Ndiaye journaliste dañ na ko yëkkati jëmale ko ci Jérôme Bandiaky bi nga xamante ni dañ nañ koy teg loxo moom journaliste mi lee di Pape Ndiaye moom nag dañ lay def ci moom mi lee ay révélation xam le ni kon moom bee di Jérôme dañ lay xam lu bëri jëm nag ci régime bu Macky Sall patax nag xam leen rek ñu bëri jàpp li jëm nag ci dossier Fulbert Sambou ak ki nga xam ne mooy Didier Badji moo tax ñu daal di koy teg loxo waaye nag jamono ji leel donte bokk na si biir waaye nag des na yeneen yoo xamante ni am na yeneen yoo xamante ni rek moom lañ koy toppee jamono ji tax nag moom mu ngay xam le ni kon moomee di juróom buñ ko jàpputoon jarul rek ñuy jàpp ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci régime bu Macky ndax nag lu ëpp ci li nga xamante ni rek moo fi jotoon am ci diggante atuma 2021 jëm nag atuma 2023 bokk si ñi nga xamante ni rek dañ nañ si ñàkk seen bakkan wala sa ay manifestation yoo xamante ni jotoon na fi xew yàlla ak li nga xamante ni mooy dossier Fulbert Sambou ak Didier Badji ci nag noonu ne dossier bi nga xamante ni rek moo fi indoon coow diggante Ousmane Sonko ak Adji loolu lépp rek ki nga xam ne mooy zéro juróom bànje gi def ko boole xam lépp ci biir ba tax nag mu ngay xam li ni rek jamono jile rek moom mi di Jérôme Bandiaky gi enquêteurs yi bu ñu paree ci moom loolee nag dina leen daal di yombalal seeni liggéey ngir nag kon ñu mën a teg loxo ñeneen ñi nga xamante ni rek nekk woon nañ fii di def ay xeetu ñaawteef ci régime bu Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci Pape Ndiaye mi nga xamante ni moo daal di yëkkati yooyu lee kàddu gannaaw nag arrestation ki nga xam ne mooy Jérôme mi nga xam ne jamono jile rek mu ngi ci loxo yi ay yoon